asalaamaaleykum mbokk internet yu MTV tey nag dañ ñëwoon fii ci Colobane ngir waxtaan waxtaanee insalubrité bi fi nekk comme ni nga ko gisee sama ginnaaw gis ngeen saleté bi ni mu nekkee fii nii ñi nga xamante ne ñooy jaay lekk ñooy jaay tissu ak passant yi ñëpp di ko romb. tuuti ñu dem waxtaanee ñi nga xamante ne ñooy dund ak ndox mi fi nekk salte bi fi nekk ngir xam ñoom nan la ñu jàngatee saleté bii nii. sëñ bi nuyu nañ la. maa tur bi naka la. maa ngi tudd Xaadim Baabu. yàgg nga nekk fii di jaay si marché Colobane. waaw fii de maa ngi fi yàgg yàgg naa fi lool. d'accord léegi seen njaay mi jamono gi nga xamante ne Covid mbas mi mu ngi continuer di def ay dégâts wam yéen ba xam est-ce que yéen seen njaay ngi dox comme ni mu doon doxee avant. waaw njaay mi de moom ni mu daan doxee ak ren moom am na différence bu bari parce que mbas mi moo ko waral mbas mi li tax mu waral ci jaaykat yi la gën a sonal booy xool fi commerçant yi parce que lu ëpp ci bagage yi. liggéeyuñ ko Sénégal dañ koy jënd ji ay Chine ay Dubaï ay fu ne la jënd jee bagage fekkoon dañ koy jëndee Sénégal du problème mais lu gën a ëpp solo mooy fi ñu koy jënd jee dafa sori te foofu noonu dañoo ñoo seen frontière léegi nag fekkoon ne lu ñu jëndoon moom la ñuy jaay te mën a jëndaat bagage parce que amuñu fi nga koy jënd jee loolu moo tax mbas mi gën ñoo sonal déjà événement bi bon nit ñi ñëw nañ mais par rapport ni daan ñëwee boo xoolee bagage bi des na fi marchandise bi des na fi te nit ñi instant yi jamono ji ñu tax la gën a dëgër jamono gi la mbas mi gën a laal commerçant yi parce que ñii fi gisoo kenn deuxièmement mbas mi nekk na loo xam ne aussi maanaam bu ñu waxee dëgg te yàlla tax amul kenn kum lu ñëpp la sonal. donc su ma la déggee bu baax jamono ji nekkoo leen di am ay marchandises comme ni ngeen ko doon amee avant. waaw jamono ji moom marchandise bi dafa gën a dëgër aussi dafa gën a am problème pour ñu jënd ko léegi amatul dagg billet di ko jënd ji dèjà boo ko bëggee carrément dañ la koy dugalal këlul la ko mu ñëw te loolu fi mu toll nii daanaka na damaloon sa bopp daggal sa bopp billet xool li na bëgg na jënd ko xool say client lan lan bëgg na jënd ko loolu dafa neex te aussi loolu moo tax commerce bi gën a màgg parce que yow mii di ñëw si place bi su ma la jaayee pagatas ñëwaat na fekkaat pagatas ma jaay la loolu da lay neex parce que dina xam foo koy jënd jee mais ñun la jaayee pour ñu amaat bagage day métti si ñun parce que fi ñu jee moo sori Chine lañ loolu mooy problème bi donc jamono ji yéen nekkoo leen di répondre répondre demande clientèle bi. ñu ngi koy am parce que danoo jaxase bagage yi entre mbase boo xoolee moo gënoon dox ci événement bi mais période bi bu événement bi jàllee dañuy ralentir fii la fili comme paquetage yi mais mbaj mi doo boo bëggee dégg-dégg sonal na ñëpp sonal na Sénégal yi yëpp. léegi tabaski njaay mi nan la demee woon ci julli ji julli ji paase ak différence bi mu am ak julli yee doon paase nga xamante ne mbas mi nekk fi woon et tout. waaw bon. jamono yële passé ak jamono ji am na différence parce que mbas mi am na lu mu si laal lu bëree parce que soo xoolee prix yi daan jaayee jamono yooyu ak prix yi ñuy jaayee ren bokkul parce que wàññi nañ bu baax a baax a baax wàññi nañ bu baax a baax boo xoolee prix bu njëkk ba moo gënoon a neex mu njaay mi si la gënoon a gaawee prix ren bi danoo wàññi mais liñ jaay xay na sant yàlla parce que événement bu jotee moom Sénégal yi danoo tàmm événement. lu mu xat-xat danañ jënd lum metti métti métti danañ jënd tam nan événement parce que loolu suñu vie la nee na par rapport ak bële moom am na différence bu bëri parce que bële moom moo gënoon a point yooyu moo gën a moo ëppoon point yi. sëñ bi ñu lay jaajëfal. merci beaucoup soxna si. ñoo ngi lay fay. tur bi naka la. Ousmane Guissé. Ousmane Guissé nan ngeen dundee instant bi port obligatoire du masque bi ba xam client est-ce que ñu ngi koy respecté. client ñoo ñoo ngi takk masque cest à yi dañoo sonn si arrêt yi chaque jour romb arrêt client yi taaw dañuy daw ba sonn te mu ñëw dugg si oto yi loolu mooy problème bi ñoo ngi takk seen masque wante client day bari si arrêt te bu bi nag bu ñu wàññeeku il faut client yi tas ba ñëpp donc yow suñu la dégloo problème du affaire takk masque bi mais ñu yokkal leen bus ñu def ba ngeen xamante ne client yi nekk di dajaloo si arrêt yi client takk seen masque dugal a a yokk feebar bi donc yow yéen ban appel ngeen lancé yéen lan ngeen bëgg en fait ñu yokkal leen oto yi wala lan ngeen mu ñu ñu def surcharge bi comme ni mu doon amee ñu doon defee waaw ñu def ko takk masque dugg si oto yi ñu liggéey client yi dañoo sonn client sonn nañ de ay client bu doxee Colobane fii ba Géejawaay du am oto bu ko yóbbu dañuy ran fii ngoonaa ngoon dañu ngoon dañu fii ran dañu mot mille nit ci biir fii si garage bi dañoo sonn client yi te ñun boo yebee jëndee client police yi jàppale sonal la ñun tamit su soo tamit sonn nañ ci beneen client boo ko tegee fii police yi jàpp la il la problème bu dul jeex d'accord merci maa ngi la remercié yooyu sëñ bi nuyu nañ la fay nañ la yaay booy tur bi naka la man Sooru Mbay Mbay yow la kan man régulateur ligne 3033. léegi en tant que régulateur nan ngeen gisee fii ni clientèle bi nga xamante ni dañ fiy ñëw ak li ñuy wax port obligatoire du masque bi est-ce ngi koy respecté ci biir bus yi. waaw am na clients yu koy respecté am na ñoo xam ne nag respecté ko mais ñi xam ne respecté ñun ñun ñi nga xam ne ñun ñun ñooy jox départ bus yi ñun ñooy ñëw di leen ko wax pour ñuy takk seen seen i masque dañ leen koy exiger receveur quelques receveurs dañ leen wax ne leen ñuy wax seen clients balaa kenn di yëg coto bi de xam fu nga jëm nan wax ko mu takk masque ba pare nga doog a a wax moom. mais doo leen jànkonteel ay problème genre nga wax nit ki takkal masque mu bañ wala affaire yi. du nu bañ da ko wax takkal masque mais bu duggee ba ci biir bi xam nga mënoo contrôler ci ñaar bu duggee ci biir oto bi da koy teg moom dañ ko daal di tekki te des fois ci chauffeur yi dañ ciy am ay problème ak homme euh, ci kaw euh, yoon yi. dañuy gis client boo xam ne du tak masque chauffeur bi lañ la ko am du am du laay ñëw directement di ko interpellé te alors moom bu bu bu caaxaan yow chauffeur bi ci boppam moom mënul contrôler client kon homme de loi bi ci client bi ci la war a ñëw wax ak moom li mu war a wax moom ñoom bi moom balaa client bi dugg dana ko takkal masque mais bu duggee ba ci biir oto bi da koy problème boobu daal lañ ciy am kon yéen problème bi nekkatul si chauffeur yi wala si receveur yi kon ci clientèle bi la nekk. voilà ci clientèle bi ci la nekk ñoo ñoo ñoom ñooy indi problème yi am na ci ñoo xam ne moom respecté lañ ko ñoom moom koy takk mais jam ci xam ne dañoo dëgër bopp bu ñu dugg dañ koy jël rek teg teg teg bu ñuy génn dugg dugg oto bi départ ñu teg ñu tekki téye seen seen loxo bu ñu gisee policier ñu njëkkante gaaw takk kon nga ne bu ñu teg daani dañ ko war aussi di teg ñi nga xamante ne passager yi nga xam te ñoo nekk effectivement passager yi bu ñu doon def loolu passage bu ñu fekk ci biir oto bi takkuloo masque ñu wàccee la exemple la ci ñeneen ñi ñeneen ñi nga xam ne doon nañ ko def bu ñu ko defee teg leen di daan fay leen amande ñu fay leen sénégalais moom bul dóor bul ki laalal poosam rek boo laalee poosam ah, da nga am li nga bëgg. merci ñu lay jaajëf. merci beaucoup.